fu ñu mën a nekk ñi ngi leen di nuyu ci nuyoo ba gën a matale muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ba nu sante sunu borom subhaanahu wa julli ci yonentam bu tedd bi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal Serigne Mountakha Bachir yéene jim am ci liggéey lislaam mu defe ko nu kawe njortam mu mel ne bokk yu ñuy topp ci sunu. Eh, site al xaddimiya tey jii ñu ngi ci seet si jàmbaar joo xam ne jàmbaar juy liggéey la ci njàngalem Serigne Touba njàngalem lislaam eh, di jàngalekat di yarekat di sëriñ ci baat bi ñu xame sëriñ eh, muy doomi soxna ba pare di jàngalekat di yarekat comme ni ñu ko waxee di sëriñ Mbàkke Jóob xudar ñu miin ko lool bokk ci xirri ji mahad eh, durusul islaami cheikh mohamadul moustapha ci Touba moom la ñu dalal tey ci suñu émission xasidat yi mu mel ne tey nag ñu bëgg a càmbar xasida goo xam ne gu ama am solo la ci xasaayit cheikhul xadim رضي الله تعالى عنه موي قصيدك أسير مع الأبرار كنا خمنا نبنيو تد قصيدة غرق ليب دمتي يونو جيجي دمتي توكي بي موي مغلوك ديسوت سفر كون مملنا قصيدة غوغو لنو وراء چامبرك موم تي دراسة والتحليل مانام تي ياتالكو جيني لتي نك تي لجم تي والوم E, jàngat xasida gi ci ay tomb yu néew a néew leeral onwaanu xasida gi muy titre bi wala adresse bi waaye taarix ak makaanu nadamil xasida e, date bi nga xam ne ci la sëriñ bi taalif xasida gi ak bërëb bi mu ko taalifee waaye xasida gi ban baxru la ko sëriñ bi waaye ci fukki baxru juróom ba juróom benn yi nga xamne mom la khalil sos waye qasida gi mawdu'a di ci nek muy tombu yi ci nek yu wute yi nga xamne mom la ci serigne bi mom da danañu ko jema leral leeral allah li ci nekk ci wàllum luxa balagha ak yu mel wa hasanatul badia ak ya ci aju yep tashbihak bolem e axraat charia yi ne ci bir yep incha allah e, lu nu ci waxtu yu may rek Serigne Mbacke danañu ko jéem a leeral kon e, ñu jox ko kàddu gi mu nuyoog mbokk yi bisimilah sëriñ Mbacke. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu ali beytihi al kiram at zawi ridwani wa tamkin mbokki julit yi mbokki talibe yi ñing leen di nuyu di leen ziar di jital ci nuyo yi al Khalifatul amdi tariqa al muridiya al shaykh mamadil muntaqa al basir di ñaan yalla borom bi subhanahu wa taala may ko fanu guddwaan ak yaram di ziaré mbolem suñu mbokki julit suñu mbokk murid yi nga xamni ñoy and ak ñun hamne yu am solo yi nga xamne ñu koy ci al muy site internet bo xamne dafay yëngu ci tasaare njàngaleem sëriñ bi ñu war ci ànd ak euh, sëriñ Bàcc Silla mi nga xam ne suñu mbokkum daara la woon di ko sant bu baax ci kàddu yi nga xam ne tijjee na ko xam naa dañuy ndokkeel murit yëpp rek ci weeru màgg wi nga xam ne ci lañ nekk di weeru ngañaay di weeru mbégte di weer wi nga xam ne ci la sëriñ Tuubaa radiyallahu taala anhu amee woon may yu yi nga xam ne moom la ko suñu boroom may ba tax mu woowoon taalibe yépp digal leen saabu fukki fan ak juróom-ñett ak seete ñu ko ci la yàlla borom bi subhanahu wa taala tàmmulee ko ca gileem ba ci ginaar mu doon it weer woo xam ne saabu egsee may yi ko suñ borom may day mel ne day gën di ba tax moo xam ne rabaxiya fi ixdaami xayril wara bada wa fi kulli sahrin zeydu ribxi wa fi safar muy tonawu gi may tonawu ci liggéeyal ngën ji mindeef leer na ci weer yépp waaye day mel ne ci weeru safar bu ñëwee day gën a leer day gën a yokk te bi mu ne wa fii kulli sahrin rek day mel ne mhm. weeru safar duggaale na ci biir waaye beral gi mu ko beral ak tudd mhm. day wane kon mhm. wàccuwaay bi nga xam ne moom la weer wi am ci moom xam naa ni nga ko waxee rek ñu war a jàngat xasida goo xam ne xasida la goo xam te ni ñëw na ci jamonoom day mel ne ñu ngi waajal tukkib géej euh, muy génn gi sëriñ bi génnoon euh, nga xam ne moo waral màggal gi tey te it xasida gi day mel ne day dugg ci xasaay di nga xam ne buñ ko doon classé mhm. ci xasida yi sëriñ bi taalif ci jamono jooju lay doon mhm. muy assiru maal abraari doon xasida gu am solo mhm. kon xam naa dañ lay bàyyi ak kàddu gi jërëjëf sëñ Mbàkke xam naa ngir ñu njëkkanteeg waxtu wi ñu def nañ ko ay neqaat waaye noqta bi ñu njëkk a tudd rek muy tomb bi ci jiitu mooy nga jéem ñoo leeral onwaanul qasida muy eh, tomb bi ci njëkk bismillah waa kay jërëjëf sëriñ bàcci euh, xam nga xasida moog téere ñoo yam ki koy bind léeg-léeg mën naa am mu tuddee ko benn titre boo xam ne titre boobu moom lañ koy miinee bu dee ci xasiday sëriñ bi nag léeg-léeg day am nu muy faral di tënkoo léeg-léeg day jëfandikoo lu bëree bëri li ñuy tuddee fànn tatris tatris mooy jël ak xasida tënk ko ci ay alxuraan wala tënk ko ci ab xadis wala tënk ko ci turu yonent bi sala sallallahu alayhi wa sallam wala tënk ko ci turu weer bu dee xasida gi nag loolu amu ci euh, kon day mel ne li ñuy gën a lëngal rek mooy njël njëlbeenu xasida gi noonu lañ koy tuddee muy asiru moo tax ñu naan asiru lan moo waral ñu naan asiru mooy madlan bi muy bayit bi nga xam ne moo ci jiitu daa tàmbalee asiru ma al abrari xiina asiru wa dhanna al ida ani anni hunaka boo xoolee lu mel ne euh, jazbul xulub moom moo ko tuddee noonu mm-hmm. boo xoolee lu mel ne mawaahibu naafix moom moo ko tuddee noonu mm-hmm. boo jëlee tamit lu mel ne mm-hmm. euh, sindi di comme li am ci asiru rek mooy li ciy am nga xam ne njëlbeenu xasida gi kon ci la ñu tànnee tur bi nga xam moom la ko borom tuddee wala tur bi nga xam ne moom la ko murid di wooyee bu mu siwee tur waaw kon dafa mel ne ni ñu baaxoo woon a xamee xasida yi ko jiitu nga xam ne dafay am unwaan noonu nga ko waxee tatris bi nga xam ne dañ koy tënke ay aaya alquran wala yu mel noonu wala mu bind unwaan bu leer boo xam ne dañ naan xasida sàngam noonu la ko tudde dafa mel ne xasida gi loolu amu ci dafay mel ne matlaa bi bayit bu njëkk bi rek e, koo wax rek xasida ak asiru la lay wax waaw kon dafa mel ne bayit bu njëkk bi rek la ñuy tàmbalee tudde ko turo mu gën koo siiwee kon loolu yaakaar naa leer na mu mel ne bu ñu jëlee suñu tomb ñaareel e, muy taarix bi ak bërëb bi sëriñ bi waaye qasida gi e, loola bo ñu ci mané dikkal inshallah allah. waa kay jërëjëf sëriñ bacci ñi ngi lay santat bu baax ci laaj bu am solo bobu ndax xam nga euh, dimension bi nga xam mo jëm ci walum historique bi dana am solo lool. ñu xam jan jamono la ko sëriñ bi taalif looloo daanaka buñ ci tontu danay wax ne léeg-léeg am na serigne bi yo xamne mom pour nga xam jamono ji ko serigne bi talif mën na yomb lol ndax yenn yi sëñ Modou Lamine mën na ko tudd ci Irwa wala sëñ Mouhamadul Amine Diop ak Dagaani wala sëñ Moussa ko junj ko waaye nag da ci am yoo xam ne léeg-léeg moom xëy na ci biir xasida gi ngay def say gëstu ba mën ko cee génne am na ci tamit yoo xam ne moom mën ngaa xam barab ba waaye dëgg-dëgg kañ lay doon mën naa jafe bu dee bii nag moom day mel ne bu ñu xoolee ni nga xam ne noonu la sëriñ Modou Lamine Diop na waxee ci Irwa un Nadim sëriñ bi mu ngi ko tàmmali ci bi muy soobu rek di dem ci géej gi mhm. ku xam ne ne sëriñ bi Mbàkke Bari Jolof la génne mhm. ngir wuy ji woote borom ndar mhm. jaar ci dëkk yu bëree bëri bari nga xamee noonu la àggee ndar bi mu eggee ndar nag foofu la ko tàmbali kon ma def naa wax ne 1895 ci la ko sëriñ bi taalif di cent 1313 di jaay si seen ci atu gàddaay gi looloot li koy firndeel sëriñ la Lamine Diop Dagana day mel ne dafa wax ne xasida gi bi ko sëriñ bi taalifee wan na ko alhaaji Njaay maa beey mu bokkoon ci magi ndar yi wan ko xasida gi rawatina nag bayit bu njëkk ba digal ko sax mu mokkal ko xamal ko ne ko daje waat mu daal di koy def moo tax sax mu ngi wax ne wal taqayaa ba'da sab'ati a'waamin wa ashhurin ñu ngi dajewaat ginnaaw juróom-ñaari at ak weer nee sëriñ bi ak alhaaji njaay Mabey mhm. day mel na ñu nettalente loolu nga xam ne moo jaaroon mhm. bi ko sëriñ bi nettalee li doxoon seen diggante moom dafa daal di mhm. jooy delluwaat ci yàlla borom bi subhaanahu wa taala te day mel ni suñ la Lamine waxee dafa doon xasir gomte nii da ko sange woon da ko aare woon boppam bi muy génn waaye euh, bu ñu xoolee ba tey sëriñ Basiru wax na lu mel noon noonu mu ne fa haadihi qasidatun saji munsajimatun بديعة رائعة أنسأها في طريق سفره حين وصل إلى سانوي محل الحاكم العام في المدة التي ينتظرون فيها للحكم نينا قصيدة لغو خامنة غو قدولا غو ربالو غو قدو غو خامنة قصيدة غو تارو سرين بمينكو وايكيو يون ويغا خامنة مو يون توكيب مو بيمجمي ندار Euh, muy barab bi nga xam ne fa la gouverneur général daan faral di féete mhm. ci diggante bi nga xam ne ma ngi fa nekk mhm. di xaar àtte bi nga xam ne moo war a wàcc ci moom nga xam ne ndar am na fa mhm. weer ak lu tegal kon yàgg na fa lool waaye sëriñ Basiru waxaat na ci biir Minane luy wane na sëriñ bi mu ngi ko eggalee ci biir gaal gi ci biir Minane am na barab boo am te wax na ne sëriñ bi mi ngi ko eggalee ci biir gaal gi muy bato bi nga xam ne ci lañ ko yaboon ngir yóbbu ko mu dem ci réewi soriya muy bato bi muy juñu di wax ne àllamani rahmaanu fi safina bi ànd na ni xadimu silmadina muy ville de Bernam kon daal ma neef naa ndar la ko tàmbalee waaye ci biir gaal gi la ko eggalee suñ sukkandikoo ci version yi nga xam ne moo jotoroot suñ bàcc jërëjëf kon bu ma déggee sa wax mooy taarix bi moom e, mooy taarixu yoonu géej gi rek mooy 1895 waaye bërëb bi mu ko taalifee tamit dafay mel ne mooy diggante ndar ba ca eh, bato ba kon dafay mel ne kon eh, bu ñu sukkandikoo ci li nga wax ci tegtal yi Cheikh Ahmadou Lamine Diop Dagana joxe eh, bu ñu ko toppee noonu yaakaar naa leer na nañ ñi kon loolu moom amul lenn lu ñu laam-laamee ci diggante bërëb bi nga xam ne ci la ñu ci la sëriñ bi nosee xasida gi kon mu mel ne ñu potoxlu foofu rek dugg ci waznul xasida maanaam ban baxru la sëriñ bi waye xasida gi ci baxru yi ñu xam wala euh, baxru boppam la wala ban façon baxru ci la ko waaye waaw kay jërëjëf euh, sëriñ beet yàlla borom subhaanahu wa taala daa dogal muy sukkandiku ci li ñuy tuddee ilmul arut wal xawaafi xam-xam bi nga xam ne moo jëm ci lu aju ci wàllum way ak ni nga xam ne noonu lañ koy peesee Euh, baraana ay xasaayit yoo xam ne da koy way day tënku ci baxru euh, am na ci sax yoo xamante ni xëy na dana am baxru yu raar yoo xamante ni ci la ko sëriñ bi wayee ba ñenn yàpp ne sëriñ bi moo ko fent waaye li gën a la nga fent ko lu mel ne mu waaxi bu naafeex loolu lu mat a jubbanti la ndax am na ñu ko ci jiitu woon ñu ko wayoon day mel ne sëriñ bi seen ginnaaw bi mu ñëwee la ko way mu waaxi bu naafee ak euh, lisaanu sukuri ak xeet yu mel noonu bu dee xasida gi nga xam ne nag ci lañ nekk muy xasida ak sëriñ bi mi ngi ko wayee ci baxar bi nga xam ne mooy baxar tawil baxar tawil ku ne xam ne na sëriñ bi way na ci lu bëree bëree bëri mu tënk ko foolun mafailun foolun mafailun foolun mafailun foolun mafailun uhuh. euh, loolu bu ñu xoolee alqaadima jaxate kala bi muy wax ci mu bàyyinul iskaal baxar yi gën a siiw tuddoon na ko ci daaw ne wa asharul buxuuri yaasa saailu tawiluha yi gën a siiw ci baxar yi xam ne waykat yi dañ ko faral di jëfandikoo yow miy laaj mooy baxar tawil muy bii nii sëriñ bi wayee euh, xasid ak asiru abraar wala basituha basir eh, mm-hmm. mm-hmm. lu melne ne xasida gi nga xamne ya mm-hmm. ne mooy xaalu li liyarkan ak rumna sukur alladhi ak lu melne ne ak kamil nga xamne ci la waye ya jumlatan ak lu melne qasidam gu siw gogu kun katiman man kon dal manef na naa wax ne ci baaxru tawil lako serigne bi tënkee serigne bacci jere jef kon buma dege sa wax moy serigne bi ci baxru tawil fuulun mafailun ci la xasida gii di asiru comme ni nga ko waxee ci maam xaadi ne ba ñu ko laajee baxru yi ban moo ci gën a siiw mu wax tawil ak kaamil ak rajas bi nga xam ne moom lañ tuddee buxurul awliya nga xam ne bu ma juumut sëriñ moom li ëpp ci ay mandumaatam mi ngi ko wayee ci baxru rajas waaye bii moom daa bokk ci mu woye tawil comme ni nga ko waxee ak basit basit bari na ci trop ah, basit moom eh, rumna shukur rulladi comme ni nga ko waxee Eh, moom ci la ko waaye eh, jërëjëf kon wësn bi yaakaar naa leer na waaye tomb bi nga xam ne nag moo ca topp te xëy na mooy bi gën a eh, bari ay kii mooy atul qasida qasida gi dafa composé ay at yu bëree bari léegi mawduu yooyu loo ñu ci mën a tënkal ndaa kay jërëjëf suñ bàcci xasida gi xëy na buñ ko jàngat mën mëneef na cee génnee thème yu bëree bari mm-hmm. ndax xasida gi day mel ne li ñuy tuddee asayruura ar ruhiya muy démarche spirituelle day mel ne moom la ci sëriñ bi di wane dëgg-dëgg ndax boo xoolee ci njëlbeen euh, raaya raaya bi nga xam ne moo tax muy dox day mel ne juññu na ko ci biir dëgg-dëgg lan la bëgg ak fan la bëgg a jëm waaye suñu xoolee tamit ki nga xam ne mooy dox jëm ci aw yoon euh, war naa am Euh, amir boo xam ne moo koy moo koy gide njiit loo xamante ni moo koy jàppale ci dox bi muy dox loolu am na ci diggante boo xamante ni lu mel noonu la ci junj ci biir xasida geet euh, kiy dox jëm ci yàlla borom bi subhanahu wa taala rawatina ci wàllum ruux am na danse bu ci nekk loolu sëriñ bi day mel ni junj na ko ci biir xasida gi waaye kim àndal ci ab doxam ba tey it junj na ko ci biir xasida gi ak daal fa jëm dëgg-dëgg wane na tamit digentem ak sahaba yi rawatina al khulafau rasidun yi nga xamne ñoo wuutu yonte bi sallallahu alayhi wasallam waye wane na tamit ni nga xamne non la ngoyé ci qur'anul karim japp ci bu deugar ak ni nga xamne non la ko suñ borom fegee ci nonam yoy nga xamne ñoy non yi ko genné wat waye nak mu doon ko xamanteni da ci istigaada moy da ci ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci bir Euh, xasida gi kon tomb yooyu ma neef naa wax ne mooy tomb yi nga xam ne moom la ci sëriñ bi jot euh, leeral ci biir xam naa su ko defee xëy na dañuy daal di dugg rek ci tomb yooyu benn par benn ndànk-ndànk njëkkante ak waxtu yi mhm. jërëjëf sëñ Mbacke kon bu ma déggee ci li nga wax mooy xasida gi moom xasida euh, dafa mel ne doxub maanaam doxub jëm ci yàlla la mhm. waaye doxub jëm ci yàlla bi dafa am ñu ko accompagner ci dox bi mhm. Eh, ni mu ko de ni nga ko waxee nit ñu baax ñi mu àndal ak ak eh, maanaam tubaab yi nga xam ne ñoo ko yóbbu ci zaahir ak eh, dox bi comme noonu nga ko waxee kon mu mel ne bay boo ñu gaaw ñëw ci thèmes yi ni nga ko waxee rek benn par benn incha allah ngir mu gën a gaaw. xam naa bu dee ci njëlbeen. Mhm. ci madlan bi madlan bu ko ñi jàngale arut waxee mooy. njëlbeenu bayit mhm. mooy bayit bi jiitu ci xasida gi foofu day mel ne mi ngi wane dox bi muy dox ak ñi nga xam ne ñoom la àndal moo tax ma ne asiru maal abraari xiina asiru mooy maa ngi dox ànd ak gaa yu baax yi al abraar waxtu yi nga ne maa ngi dox te noon yi nga xam ne ñoo ma génnee muy tubaab yi ñoom ñu ngi njortu ne ab prisonnier bu ñiap la motax seigne basirou Basiru démé ci minan day wax ne wa fi awwalir ra'iya ma yunbi'u an halihi an nafsiya ci wénu ra'iya bi li tax mu né ra'iya moy qasida gi raala daano bam jeex muy qafiya wi raala motax mu né ra'iya euh da ci wané mom hala nafsiya muy situation ci wal psychologie mom sëriñ bi euh seigne modlamine Job Dagana bo démé ci minahul miskiya fil xawaarixin bakiya mom day wax ne euh, serigne bi lolou mu wax ne mal abrari euh, mi ngi ci jublu wa ahlu badar motam ne yusiru radiyallahu anhu fi hadhihi alqasida ila annahu yaghibu ma ahli badrin wa humul maqsuuduna bi qawlihi mal abrar gis nga kon lolou day gëna leungal euh, li nga xamne ne wane na kon wa ahlu badar la andal mi gën di dox jëm ci tukib geejgi te bobu mi ngi dox tamit ci walum euh xam nga budé liñu tuddé ñuy tuddee asayr muy dox dafa am ñetti dimension dafa am liñu tuddé al-harakiya dox boo xamante ni euh, daanaka xeetu mouvement lay doon mu yëngatu wal jismani ak bo xamanteni day laal walum yaram war ruhiya ak bo xamanteni nak ci walum ruu lay jëm comme lu fil jihad, muy dox jëm ci jihad ak euh, jamarlo tuba bi ak non non yalla yi euh, waaye bu ñu xoolee ba tey li ñu tuddee asayru aljismaani bi nga xam ne moo am ci dëgg-dëgg sëriñ bi. mooy li tàmbalee diggante saint wi ba ni mu àggee Gabon loolu lépp mëneef na koo jàppee. muy dox boo xamante ni da dox ci wàllu yaram. am lu ñu tuddee asayru ar ruuxaani muy dox bi mu doon dox. ci wàllum ruu. loolu nag ànd ak gaa yu baax yi. ñi nga xam ne ñooy nit ñu dëgguña ngir yéeg. ba àgg ca maqaama yi gën a kawe. nga xam ne bu Mhm. egge ca daytalu ba moy lan mhm. wa anna ila rabbikal muntaha mhm. amna na ci yalla borom subhanahu wa taala lay daytaloo lu mel nonu serigne Abo Kebe amna na ci ben gëstu subam tini ni mi ngi ko ci junju su ko defé nak serigne bi wax ne masir maal ma al lillahi bin nabi wa ma li llahi audu masiru neena na damay dox and ak tanefi jëm ci yalla borom subhanahu wa taala waye amuma benn soxla bu dul suñu borom subhanahu wa taala mu wane tamit ni nga xam noonu la ko suñu borom di ñoddee ci dox boobu muy dox yasiru biyal jazbu alladi qaadani ila karimin alayhi ma arumu yasiru day mel ne al jazbu li ñu tuddee muy ñoddi ndax ci tasawuf euh, ñaari façon dafa am dafa am lu tuddee suluk ak jazb suluk mooy kam daa soobu ci yoon wi maanaam moom xam na yoon wi euh, fi mu jaar boo ko doon laaj man la ko nettali bu dee jës bu nag muy majjusub ki am dañ koo ñor di masalan moom du xam yoon wi day mel na koo xamante nii rek dañ koo dugal ci benn oto boo xamante nii dafa jëm Dakar oto bi ñu climaté ko ba mu xaw a sedd guy nga ne moom ba mu duggee rek la daal di nelaw moom bi mu eggee dakaar ñu daal di koy yee ne ko eggsi nga kooku boo ko doon wax yoon wi nga jaaroon pour mu xamle ko du ko mën a xamle bu dee nag ki nga moom daa dox di yeewu ay bëtam di gis boo ko wax mu war la yoon wi nga xam ne ci la jaar dana la ko mën a mm-hmm. Mm-hmm. xamal mm-hmm. moo tax kon day mel ne suñu borom subhaanahu wa taala mooy ki nga xam ne moo ko moo ko ñoddi waaw jëmee ko ci nag euh, moom yonte bi sallallahu alayhi wa lépp loo xamante ni mi ngi koy sàkku ci doxam boobu dana ko ko jàppandal sukuuri bi aqlaami wa qalbi wa jussati li man kaana lii bil juudi wa huwa sakuru nga ne foofu wane na sant yàlla ñor gi mu ko ñor ne maa ngi sant yàlla borom bi subhaanahu wa taala ci samay xalima ak sama xol mhm. ak sama yaram mhm. euh, ñeel yàlla borom bi subhaanahu wa mi nga xam ne moo ko defal ak tab te moom mooy ki nga xam ne mooy ki ñu war a sant mhm. euh, nu suur yi wa tayiid di wa si la dal ida min al waasiil wahaabi fa huwa nasiru mu wane na tamit euh, li koy dëgëral li koy jàppale li koy sàmm fa noonu yooyu nga xam ne fa la nekk di tubaab yi ko génnee mi ngi bàyyi ko ci yàlla borom bi subhaanahu wa taala mi aji yaatu waaye mi ngi bàyyi ko ci yàlla borom subhaanahu wa taala mi nga xam ne mooy alwahaab di ab ma yaakoon mu ne fa huwa nasiru moom yàlla mooy dimbalaakoon euh, mu leeral amiram ci biir dox bi muy dox muy njiitam amir yi la daa sayri wa muksi wasilati xadiman lahu wa huwal xadim yamiru mu ne sama amir sama njiit ci dox bi may dox mhm. ak sax gi may sax mhm. mooy sama wasila mhm. mooy sama sëriñ man ma def naa ne wasila mooy sëriñam rek di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax waxoon na ne képp ko am xel leer na naa ñi ne moom yonente bi sallallahu alayhi wa mooy sëriñam ndax lu jiitu loolu amoon na ay nit ñoo xamante ni jàppee woon na leen ay sëriñ waaye ginnaaw bi ko boroom lislaam ji nag feeñoo ba jox ko koy jox ci la daal di bàyyi lépp lu mu jàppoon jàpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu doon sëriñam mu ne xadiman lahu doon dag koo xamante ni dama koy liggéeyal wal xadimu te moom mooy aji liggéey ji yamiru dana xonte ak xont mooy dana maye ay xéewal rek mu ne ujuur yi alal wahaabi jàlla takarruman ala xidmati l muxtaari wa huwa ajiru mooy mel ne fayam yi nga xam ne moom lay sàkku mi ngi bàyyi ko ci yàlla borom bi subhanahu wa taala mii ab maye waa kon mu ne jàlla takaruman moom suñ borom màgg na doon koo xamante ni ca na mi maye daanaka boo xoolee da koy def takaruman rek muy ci ak nganeelam ci ak mbaaxam xadiman li xayril xalqi doon ko am ni damay liggéeyal gën def wa ajiru te moom mooy ki nga xam ne aji fay ji nga xam ne surga boobu nga xam ne moom la nga ne kon day wane na liggéeyal gi muy liggéeyal yonte bi alayhi salaatu salaam ñor na ko lool ndax da ko takkaraar lu bëree bëree bëri gis nga ci bayit bi ci tege sax mi ngi wax naan kawni abda ذي العرش وحده خديما لخير الخلق وهو نظير سما ميبب موي نيك جيغا خامني موم لا بغا نيك دي جامو بي الله بروم سبحانه وتعالى ميغا خامني موي بروم ارس نكون كون فوف داي واني العبوديه لله سبحانه وتعالى نيم نيك جامو سوني بروم واي خديما لخير الخلق نيك تاميت kat ñal gan jim def sallallahu alaihi wasallam. wa huwa nadhiru tam moy mooy aji xuppe ji euh, nga xamne daan boy xol fofu wax na ci lu yaato yaato yaatu ba wané na sax suhuri wa ayami gadan li sawahidu bi kaw nii wa huwa shahiru wané nek gim nek di jaamu bi yalla borom bi subhanahu wa taala ak nek gim nek di liggey kat yonentibi sallallahu alaihi wasallam. sallam day mel ne ay ak ay bisam ñoom dañ ko koy seedeel ëllëg yowmal xiyaam waaye tàgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ñor gim ko ñor ak li ko ci suñu borom defale junj na ko ci biir mu ne sutuur yi fi daaray ni matxi muhammadan bi nazmin wa nasrin wa huwa ni'ma sutuuru nga am day mel ne euh, tàgg gi muy tàgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñaari kër yi mooy kiraayam mooy suturaam moo ko aar ci lu bëree bëri te tàgg yi nag da koy tàgg ci euh, norme mooy lu ñu nose mhm. lu ñu way ak loo xamante ni day nekk mhm. euh, nasru loo xamante ni euh, wesar la mhm. mu wax ne buduuri kitaabullahi wa sunnati allati biha ahtami amma naxaahu buduuru moo ne tamit ne alquran ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa day mel ne mooy ab njiwam dëgg-dëgg euh, te ci la aaro moom sëriñ bi waaye nag dëgg-dëgg dox boobu muy dox nag jëm ci boromam galankor yi nga xamne mo ci mën juddo nak ndax ku ne xamne ne euh, nit ki am day dox jëm ci ab dekk ta xeyna na dekk ba mu jaar ci ñàll yi man na dajé ak ay galankor yu bari bari ndax lu ne man na gar ci yoon wi ta xeyna na moom waajalu ko won lu jitu waye serigne bet dox bi muy dox jëm ci yalla am na ci ay galankor yu bari bari yo xamanteni ni na ca juñu na ko ci bir doo ne xusuuri wal ahlu anni tafarraqat limathil ladhi anhu al madihu qasiru nga xam ne day mel ne ci dox boobu mu doon dox jëm ci yàlla ci la ay njëndeem weet ci la ay këram weet waaye tamit ci lañ ko teqale teqalee ak njabootam ku ne xam ne ne ci 18 safar 1313 euh, di war a tolloog 10 août 1895 ci la génnoon teqalikoo ak njabootam teqalikoo ak ay taalibeem te boobu sëñ Mourou Moustapha mi ci féete woon mag ndaw la woon ci saaxir sëriñ Fàllu noonu ak sëriñ Baara euh, moo tax mu wax ne njënneem wedd na waaye teqalikoo na ak njabootam te dara warulu ko lu du tàgg gi xam ne moom lay tàgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te tàgg yi mu koy tàgg sax day mel ne da caa gàttañlu na ko bëgg bëggee dëgg dëgg dëgg dëgg mënu koo defee noonu mu wane tamit ni am noonu la dëgmalee jëm ci boromam moom sëriñ bi li rabbil tifaati laa lahum taiban lahu min adhanbi wal afaati wa huwa ghafuru ne nee na ci yàlla borom bi subhaanahu wa taala laay gestu jëm waaye gestu wu jëm ci mbindeef yi wala nasaraan yi nga xam ne ñoom la ma suñ boroom mbooleel doon koo xamante ni nag damay tuub ci mbooleem bàkkaar yépp waaye di tuub tamit ci gàkk-gàkk yépp te yàlla borom bi subhaanahu wa taala mooy aji euh, jéggale waxaat ci biir ganitu bihi rabban waliyan yaquudu li marami wa inni shaakirun wa faqiru umuuri lahu fawwattu wal qalbu tayyibu gariban la dal aada wa huwa basiru muy wax ju xaw a yéeme wane doyloo naa yàlla borom bi subhanahu wa taala def ko mu doon sama yàlla doon sama boroom te yàlla moomu moom may wammatal samay sàkkuteef te man kat damay doon koo xam ne damay sant yàlla borom bi subhanahu wa taala doon koo xamante ni tamit damay aajo woo jëm ci yàlla borom bi subhanahu wa taala mu ne sama mbir yëpp maa ngi ko joyal jëmee ko ci moom borom bi te sama xol doon na xol bu teey doon ko tumuranke fa noon ya wa huwa basiru te moom yàlla borom subhanahu wa taala mi ngi aji gis moo tax sax ni muy waxee léeg-léeg boo xoolee day mel ne xasida gi daa nekk ci biir noon ya am na ñoom te ni moo tax dañuy jàpp ne asiru ca biir euh, tukki ba dëgg-dëgg la waaye fekk na lii muy wax ni mi ngi ci biir noon yi comme que biir gaal gi la ko eggalee rek bi mu nekkee ci gaal gi moo ko ay noonam ñoo nekkandoo woon ci biir moo tax mu waxee waxin mu mel noonu waaye ki àndal tamit ci tukki bi Euh, juñu na ko ci biir muy rafi rafi rafiqi kitaabullahi wal mustafa nabi wa ashaabuhu fil bahri xiina aduuru nee na sama àndandoo ci tukki bi mooy téereb yàlla bi di alquranul karim ak yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne moo di almustafa ka ñu tànn ak i saxaabaam nag ci biir géej gi fil bahri xiina aduuru waxtu bi nga xamee ne maa ngi wandeelu ànd ak ñi nga xam ne ñoo koy euh, génnee waaye ci biir moom sëriñ bi Euh, mu wax ni nga xamee ne nasaraan yooyu noonu lañ doonee ñoo xamante ni ñu gëlëm lañ xuyaara usaara li sayaatini wal hawa wa inni li rabbil arsi jàlla asiru mel na moom li waxoon ci njëlbeen nasaraan ñoom bët biñ ko doon xoolee ñi ngi jàpp ne moom ab prisonnier la buñ jàpp di ko yóbbu moom mi ngi gis ne moom kat day mel ne day dox ci wàllum ruu ànd ak waa ahlu badar moo tax mu ne ñoom nasaraan yi ñu gëlëm lañ waye nak ñom day mel ne euh, saytane ak banex de leena de leena japp ba am ci ñom doole lol mune wa inni li rabbil arsi yàlla asiru man nak damay dox jëm ci yalla borom subhanahu wa taala mi nga xamne ne borom aras wax ne asiru ila dhil barri wal bahri abidan walastu ila fujari audu masiru ma ngi dox jëm ci yalla borom subhanahu wa taala mi nga xamne ne borom jéeri ak borom géej gi doon koo xamante ni nag damay nekk jaamu bi yàlla borom bi subhaanahu wa taala walastu ilal fujjaari awdu masiru doxuma jëm ci kàccoor yi mukk kon wane na doxut jëm ci kàccoor yi masiri ma al axyaari lillahi nabi wa ma lii li awdu masiru masiri ilal wahaabi jàlla jalaaluhu wa ma lii ila gayril karimi nga am day mel ni bayit boobu jotoon nañ ko junj mu wane foofu kon gaayatu sayrihi ar ruuxi muy dayob dox bi nga xam ne moom la doon dox nag jëm ci yàlla borom bi subhanahu wa taala waaye ngooy gi ngooy ci alquranul karim it mu wane ko ci bu baax a baax muy li ma ne tamassaktu bil hablil matini murattilan wa bil ghurwatil wusta allati hiya nuuru muy ngooy naa ci buum gu dëgër gi te mooy alquranul karim di ko jàng mm-hmm. al urwatu al wusqa muy yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy mi nga xam nek na al urwatu al wusqa muy ki nga xam ne mooy buum gi ñuy dëgërloo waaw allati hiya nur nga xam ne moom des koy jappé ak lèr ne bihi sirtu min rabbi li rabbi muwahhidan wa hawli an nasara wal buhuru tamuru ci mom la dox jëm ci yàlla borom bi subhaanahu wa taala doon ko xamante ni damay kennal borom bi mu waxidan di kennal borom bi mooy di jox yàlla borom bi subhaanahu wa taala li nga xam ne moom la moom ci ab cër waxawli nasaara te jamono jooju nasaraan yi ñu ngi ma war wal buxuuru euh, tamuru te géej gi mi ngi duusu mu ne huwal kanzu wal kibriitu wa zaadu lihuna bihi tantafi naarun gadan wa xubuuru mu ne moom alquran mooy euh, koom mi gën a rëy mooy tamit Euh, kibrit mooy ab taalukaay wala ab niitukaay mooy tamit yóbbal bi nga xam ne moom lay yóbbaloo fii te moom moo may euh, sori li nga xam ne moo di sawara ëllëg yawmal xiyaam ak euh, alkane waaye tamit boo xoolee da gis ni nga xamee ne noonu la istigaada ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni dimbali ko ci yonent bi gis nga nabiyul huda taabat liyan nafsa hahuna wa anta bi mathi kas salaati jadiru wane ne yonent bi alayhi salaatu salaam mooy njub bakanam teey na ak fële te mom kat moy ki xamne mo yeyo tag yi nga xamne mom lay tag ak julli yi nga xamne mom lay julli mune kon fasal khaliqi taajila aw bi bi munyati fa ala al mawla al karimi yasiru kon yow yonti bi maa ngi lay ñaan nga ñaan yàlla borom subhanahu wa taala mi nga xamne mo bind kon day melni ku ñaan yonti bi alayhi salaatu te yonti bi alayhi salaatu wasalaam mën sàkku ci boromam lo xamanteni man na naa nitu yàlla moo tax mu ne ko ñaanal yàlla mi nga xam ne moo ma bind mu gaawee samay mbir euh, samay euh, sàkku jërëjëf sëñ bi foofu danaa fi dugal ab laaj mm-hmm. dafay mel ne suñu mbokk yi léeg-léeg da ci am ñoo xam ne bu ñu gisee mbindum sëriñ bi fii mm-hmm. fasal xaaliqi taajila aw bii bi munyati fa daaka ala al mawla al karimi yasiru mm-hmm. euh, dañ naan waaw dafay mel ne day ñaan yonent bi te fekk dëgg-dëgg da gis ne ñaanul yonent bi mm-hmm. dafay mel ne dafa am mbir yoo xam ne mm-hmm. yàlla da koo jagoo mm-hmm. doomu aadama tamit jagoo ko waaye na ko yàlla jagoo bokkut ak ni ko doomu aadama jagoo parce sëriñ bi eh, ngay gis léeg-léeg ni muy waxeek yonent bi da ngay dangay ngay ñoom am na ci ñoo xam ne dañ ci eh, eh, joxoñ baaraam léeg-léeg di di am yuñ cay wax loolu leeral na ko bala ngaa jàll tuuti waaw xam waa kay jërëjëf sëriñ bàcce nga ne sëñ Tuubaa da doon ko am da fonk ñaan eh, ba tax boy xol am njàngaleem ñaan da ci ber da ci yaatu lol tay tit mom li nga xamne modi di at tawasul muy jokku ci nituk yalla mom da bok ci ñiko ko daganal da bok ci ñiko ko daganal ndax boy xol ay mbindam da koy def lu bare bare bare eh, da ngay gis sax xasaayit yu bare bare gharat bu mel non moko taxaju Lu a jóg lu mel ne wala sax jalibatul masarra wa dafi'atul madarra ak lu melni sindidi da ngay gis nim tawassule ci yonente yi ak euh, malaika yi ak tamit nit ñi nga xamne ñoy nit ñu bax ñi muy walu yi ak ni tawassule ci ñi nga xamne ñoy al aymatul arbaa mm-hmm. kon mom, buy ñaan day melne ne daa jëmale ñaan gi ci mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mhm. ki muy ñaan dëgg-dëgg mooy boroomam mhm. ndax ku ne xam ne ni yàlla borom bi subhaanahu wa taala la ñuy ñaan waaye nag ñaan mëneef na koo jaarale ci jaam bu suñ boroom gërëm boo xamante ni nongu na nongu na ay mbiram boo ko jaaree ci moom day day gën a gaaw nga sant euh, am na xadis bi wax ne jaam bi santaguma fi wak santul ki nga xam ne moom laa jaarale xéewal gi ci ay loxoom léeg-léeg nit defal la dara mhm. nga sant ko waaye santoo ko dëgg-dëgg mhm. yàlla nga sant ndax yàlla moo jaarale ci moom mhm. xéewal gi bu toon suñ borom xëy na du mën a egsi ci yow kon foofoot mën naa bàyyi xel ci suñ mbokk yooyu nga xam ne ñoom day mel ne buntu tawasul léeg-léeg dañ ci xaw a xatal lool di ci génne ay nit ci diine lislaam te fekk na mbir yi nag euh, demeewul noonu demeewul noonu mu ci ñaan yàlla di ko jaar ci yonte bi alayhi salaatu wasalaam euh, gis nga bi mu tuddee yonte bi alayhi salaatu wasalaam ba wax li muy wax ni ko ñaanal yàlla borom subhaanahu wa mi nga xam ne moo ma bind mu gaawal samay sàkkuteef te loolu nag lu yomb la ci yàlla borom bi subhaanahu wa taala daal di julli ci moom waaye da caa tegaat lu gën a yéeme axis nii axis nii yaa shafii wasilati huna wa gadan yawma samaau tamuuru arizni arizni mhm. yow suñ borom mhm. ma ngi ñaan mhm. nga xet lima ma jaare ko ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam. mom mi nga xamne moy sama aji tinu ci waye mom mi nga xamne moy sama wasila moy sama serign fi ak fele bis bi nga xamene asaman si euh, suñ borom subhanahu wa taala dana ko soppi jenen asaman euh, ngir ay tartar ak ay tis yo xamanteni dana am mu yomal waye mu wax tamit ci bir euh, ni nga xamene non la amé ñewantal ci wa l'islam fa bassir mhm. sawil islaami bi aajilan mhm. wa kun muniiran bi yal islaama anta muniiru mhm. na nga bégal ci lu gaaw ñooñ lislaam mu ne ñooñ lislaam nag ñëpp a ngi ci biir du caa gën a ay ñooñam rek waaye na nga doon koo xamante ni dangay leeral ci man euh, lii di lislaam yow yàlla wala yow yonti bi alayhi salaatu salaam mi nga xam ne yaay aji leeral waaye bi mu tuddee yonti bi alayhi salaam daanaka néewaana fu mu tuddee yonente bi te tuddut ay saxaabaam da caa teg nag maal ali wal ashaabi usdil ida maan zawi sabbi an nii kulla man sa yajuuru ànd ak nag nga julli ak a salmal ci waa këram ak ay saxaabaam ñi nga xam ne ñooy euh, usdil ida nga xam ne ñooy gaynay euh, noon ya ñoom ñi nga xam ne ñoo ko aar ci digganteem ak ay noonam wala képp koo xamante nii sëñ Mbàkke foofu ma dugal ci laaj ci bayit bi nga passé tuuti rek fa bashir zawil islaami bi aajilan okun muniran bi biyal islaama anta muniru mm-hmm. mu mel ne dafa ne nanga nga bégal waa islaam mm-hmm. ci lu gaaw mm-hmm. ci lu gaaw ji dafay mel ne kon bi mu jógee ci géej gi rek eh, maanaam eh, muniran biyal islaam kon dafay mel ne yàlla na nga leeral islaam jaare ko ci man jaare ko ci moom mm. muy mel ne kon dafa xett li diine ji xett lislaam comme li ko mm. Cheikh Saadu Abi doon wax mm. rek naan diine ji ci boppam moo am mbégte tey xani an lisa diinil xaribi gada aywa nga nga mel ne kon bi mu ñibbusee diine lislaam ci boppam ak demam dafa mel ne lislaam la demaloon mm-hmm. demalu doon yoonu murit dong yam ca mm-hmm. waaye demalu doon ay bokkam kepp waaye mm-hmm. lislaam jëpp la demaloon kon dafa mel ne bayit wi ñibbusi gi ak màggal geeg lislaam ni mu amee ndam Eh, ni mu daggee buumi njaam yëpp. Mhm. ginnaaw bi ba tubaab bi am lu muy ragal ba mujj gi daal mu mel ne eh, xam na ne ñii moom. Mhm. ay nit yàlla lañ eh, taxawal diine la def te diine ji day taxaw bu faw mhm. loola dafa mel ne moo tax sëriñ sépp bi mu ñibbisee ñu tagg ko kenn ku nekk. seede ci moom di ko wan ne ko yaa taxawal diine yaa yëkkati diine. Eh, yooyu yëpp ñu wax ko ko kon loolu dafay mel ne lool it feeñ na foofu bu baax a baax a baax xëy na li koy gën a dëggal li wane na moom lislaam moo ko ñoroon mhm. mooy sëriñ Basiru day junj ci mi nanul Baal Xadim mhm. boo xamante ni mi ngi ko jëlee ci Moxtaar Binte Jaxate Moxtaar Binte Jaxate doom la ci Alxaarima Jaxate Kala mhm. da ko wax ne ko moom sëriñ bi da doon waxtaan ak moom ci benn bis sëriñ bi ne ko lan la sa waajur def bi mu déggee na tubaab yi ñu ngi may tumuraankeel mu ne ko sa indihasan ajiban gariban yéemu na yemu goo xamante ni gu tumuranke la dem na sax ba wax ne ak a neexoon ñu ko nangul ci julit ñi ak mom mu jël ak roxam jotee ko ngir sëriñ bi baña dem ndax fum nekk rek fa l'islam di euh sëriñ bi dal li kacé tontu ne ko mhm. sa wajur di ni rek la nekké won ak man waaye ak a mhm. ma fekkat ko fi sëriñ bi bi mi ñëw fekk na xaadima ah. jaxate kala ah. faat bam gis may yi nga xam ne moom la ma yàlla borom subhaanahu wa taala mayee ci tukki boobu daan ne ko maadallaahi an lam taqa maa ngi muslu ci yàlla mu wañoon a am ndax day mel ne daraje yeeg yi ma suñ borom may lépp mhm. maa ngi ko amee ci tukki géej te te loolu dafa mel ne li koy firndeel mooy xoqa boo gisee seen diggante li wane ne dëgëroon na mooy bayit wonqa bi mu ko joxee baat bi noonu rek sëriñ bi woy ci xasiida ko gis nga jooy ñor yam ca jooy day mm-hmm. ndeysaan ngir am ak cofeel ci sëriñ Tuubaa lool dafay mel ne kon ñëpp ko mujj nangul mu jamonoon teel ñëpp ko mujj nangul ñii ci ay waajuram ñii ci ay rakkam ñii ci ay magam mm-hmm. tabarkàlla mm-hmm. eh, ñu continuer kon ci saxaaba yi ndax moom fu mu woyee wax ci yonent ba pare rek faaw mu dikk ci saxaaba yi ayaa xaadimal muxtaari laa tan sa saxbahu gis nga nam ko waxee woon ca mu xaddimaat mhm. et yow mi nga xam ne yaay liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wasalaam mhm. bul fàtte ay saxaabaam ndax ku fàtte saxaaba yi day mel ne saw tàgg mhm. tàgg la woo xamante ni tàgg wu ñu juumal daal doon tàgg wu jub dëgg-dëgg moo tax mu ne ala xillihi as-siddiqi ridwanu rabbihi kama qaarana fil gaari xiina yasiru nga xam ne kum ci tudd ku ne rek danaa am lu mu tuddaale ci yow Euh, yàll na mhm. julli ak sëlmal nekk ca mhm. xaritam ba soppeem ba mhm. as-siddiq ku dëggu ka nga xam ne dàkkante la bu ko daan dàkkantele ngërëmal yàlla borom bi subhanahu wa taala kama qaarana fil gaari xiina yasiru nga day mel ne moom mook yonti ma alayhi salaatu salaam ñoom ñaar ñoo lëkkaloo woon ci biir xuntuma jamono ji nga xamee ne ma ngay dox di gàddaay ala sayfihil faaruqi min rabbihi ridan kabirun kama qad dabba wa huwa wasiru yàlla nekk ci jaaseem ci di alfaaruq ki teqalee dëgg ak neen di mhm. Seydina Omar mhm. ngërëm loo xamante nii lu rëy lay doon bàyyi ci yàlla borom bi subhaanahu wa taala mhm. moom mooy ki aar l'islam ki ko défendre te mooy euh, wadiru annabi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki ko doon jàppale ci côté yu bëree bari wa minhu li dhi nurayni abghi ridaahu kama vaada bin nurayni wa huwa sabuuru nga ne mu tudd tamit Seydina Ousmane mi nga xam ne mooy borom ñaari leer yi mu ne ci moom lay sàkkoo ngërëmal yàlla borom bi subhaanahu wa taala comme ni nga xamee noonu la tuufoo ci ñaari leer yi ñaari leer yi nag li gën a wér ci taarix ci histoire dañuy wax ne denc gi mu denc ñaari doomi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax roqee la ko njëkk a jox ginnaaw bi yàlla dogalee mu faatu ci ghazwatu badril kubra ci jamono jooju nga ne a taxoon sax Seydina Ousmane demutoon mu daal di koy jox umu kalsoom euh, loolu waral ñu naan ba nuuray ni teewul sax am na ñuy wax ne ñaari leer yi mhm. mooy ni nga xamee ne noonu la fonkee woon julli guddi mhm. ak jàng alquranul karim nga xam ne ñaari rakka la daan jullee ci guddi te daa da ci daan xadmu mhm. euh, alquranul karim am na ñu wax loolu waaye li gën a lëng moom mooy li njëkk a wax ne wax wa te moom moo di ab muñaakoon ala walidi sibtayni asnaari dan kama أباد العيدا بالسيف وهو سهيرو من يالنا جل أكسل مال نكتي Euh, waajuru ñaari sëti yonte bi alayhi salaatu wasalaam muy xasan ak xuseynu te kooku mooy seydina aliyu moom lañuy ñuy euh, dàkkantelee abu sibtayni euh, gën ngaa kawe ngërëm loo xamante nii day bàyyi ko ci àll borom bi subhaanahu wa comme ni nga xamee noonu la alagee noon yi ci jaasi te moom mooy aji siw ji kon ginnaaw bi mu tuddee saxaaba yi muy alxulafaa u raasidun dafa daal li ñëw nag ñaanal ñoom ñëpp ala jumlatil ashaabi ridwaanu rabbihim kama jahadu man jaara bi sa gafuuru yàlla nekk nag ci mbooleem saxaaba yi ngërëmal yàlla borom bi subhaanahu wa taala comme ni nga xamee noonu lañ jihaatee ñi jengoon mu ne yéefar ba bon na mhm. waaw kon wax na ci wax ju yaatoo yaatoo yaat xëy na mëneef na koo tëjee rek lim ko tëjee mooy kitaabun karimun min karimin mukarrimin li abdin karimin lil xadimi yamiru kitaabun majidun min majidin mu majidin li abdin majidin lil kafuuri yaduru muy wayin wu neex téere la moom alquranul karim di bu tedd bu bàyyi ko ci yàlla muy aji tedd jëm ci jaamam bu tedd di liggéeykatu yonte bi alayhi salaatu téere la bu Euh, mag boh xamanteni tamit mi ngi bayiko ci yalla mi aji mag mhm. euh, jëm ci euh, jaamam bobu di Abdul Khadim di katu yonti bi salatu salaatu jere jeuf seigne bakke man def na wax ne mhm. lolu moy mhm. li rot ci xasida gi teewul andi wuñ lepp dañ ci tan yenn bayir rek ngir samonté ak waxtu yi jeuf li wolof di wax naan li duuf ci eh, nag wi xajul ci cin li eh, xëy na tax buñ ko continuer dana dem bam jeexal waxtu kon noonu mu ko waxee rek fi sëriñ bi jaar yëpp ci mawduwaat yi ci am rek mooy dox bi muy dox ci ruuxam eh, waaye dox bi muy dox eh, diggante ndar ba ca eh, biir gaal ga waaye dox bi muy dox kadaalika an jàkkaarlook armée bi jàkkaarloog jeysh bi ak yooyu yëpp li xew ci biir yoonu géej gi yëpp bil xulaasa bu ñu ko tënkee digganteem ak alquran liggéeyal bi mi doon ligel yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ju daw yaram jëm waxon ba gen génn xusuuri wal ahlu anni tafarraqat lu ko waral li madhi nabi ngir tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam kep tuba bi rappal ay kërëm tas ak njabotam ba pare mayul borom daru mu yare njabot gi sax ci biir dëkk bi waye ay mbàkkeeg yu mel nonu kër ngurak yu mel nonu la tas njabot gi nga xam dafa tas daara ji carrément sëriñ bi loolu daw a daw yaram la nga xam ne bi muy dem Cheikh Mamadou Moustapha ak Cheikh Mamadou Fadal ndaysaan mu ngi leen dénk yàlla ñaanal leen dénk leen seen baay Thierno di yu daw daw yaram kon mu mel ni buñ ko toppee waxtu wi dana jeex tàkk waaye suñu tomb bu mujj ci al bu'du lugawi lil qasida mu mel ni li ci aju ci lugal arabiya muy diggante balaaxa beeg yu mel noonu boo ñu ci mënee ñëwal tuuti ngir waxtu yi mi ngi muy dab daa koy jërëjëf sëñ bàcci day mel ne ginnaaw biñ gaaralee xasida gi gaaral bu gaaw euh, xasida gi nag am na ay rafet rafet yoo xam ne sëriñ bi def na ko ci wàllum mm, balaaxa xëy na dañ ci tudd yenn rek ci lu gaaw bu ñu xoolee ci njëlbeen rek ci njëlbeen da ngay gis balaaxatul xasida day feeñ ci madlaa bi muy ci tàmbalimaayu xasida gi ndax ku ne xam ne ne jinaas am na ci mm-hmm. asiru ma al abraari xiina asiru wa dhanna al ida anni hunaka asiru xam ne boo xoolee da ngay gis asiru ñëw ay yoon yoon te day mel ne ñoo bokk nuñ leen di bindee baat yi bi tamit ñoo bokk nuñ tegaloo waaye maanaa yi dëgg-dëgg li bokkul euh, nga xam ne asiru gu njëkk gi euh, day wane na euh, ci sayr lay jóge dox asiru maa ngi dox maal abraar yi ànd ak gaa ñu baax yi xiina asiru waxtu wa may dox wa na al ida anni hunaka asiru nga am ne asiru gu mujj gi noonu yi ñu ngi njort ne mankat ab asir la asir mooy ku ñu jàpp ci xare muy ab prisonnier kon nga xam ne bee day mel ne ismu lay doon gu gu mujj gi ismu lay doon bu dee gu njëkk gi nag day mel ne fi'l lay doon muy fi'l mudaari uhuh. foofoot uhuh. bu ñu xoolee day mel ne li ñuy tuddee iltifaat da cee am uhuh. min al jumlatil fi'liya ila al jumlatil ismiya mu doon waxin wu neex lool wu neex a neex tubarkal waaye ci biir xaside gi tamit mhm. danañ ci gis euh, li nga xam ne mooy mhm. euh, li ñuy tuddee mhm. euh, atibaq atibaq ci fi nga al abrar ak al aida al abrar ak al aida muy abrar moy ñu baax ñi al aida mooy noni yi mel na ñoo am ak jokkalo waaye ci biir xasida gi tamit buñ xoolee mhm. danañ gis sëriñ bi mhm. euh, bi muy wax ci saxaaba yi day mel ne def na def na foofu lu mel ni xeetu tës bi mhm. mooy bi mu waxee ci saxaaba dañu usdil ida usdil ida usdil ida nga xam ne ñoom ñooy gayney euh, noon yi xam ne kon day mel ni da leen di nuroole ak i gayne ci ak njàmbaar ndax xam nga su ma nee muhammadun asadun xam nga moo gën a nekk tës bi baliix muhammad gayne la bokkut ak ma ne muhammadun kal asadi fi sajaa mm-hmm. muhammad mi ngi mel ne gaynde ci ak njàmbaar su boobaa foofu mm-hmm. day mel ne musabbah bi mm-hmm. mooy jëmmi li ñuy eh, li ñuy nuróole ak musabbah bihi lañ koy nuróoleel ak wàccu saba day ñëw ak aada bi muy jumtukaay bi nga xamee ne moom la ñuy jëfandikoo ndax man nga ne muhammadun kal asadi fi sajaa wala nga nga ne muhammadun kal asadi rek daal di cay yam boo ñëwee nag daa ne muhammadun asadun moom muhammad gaynde la moom loolu mooy tasbih bi nga xam ne mooy bi gën a di gën a jotale. Mm-hmm. nga xam ne daal xarfu tasbih bi dagg nga ko. dagg nga ko ak wàccu sabah bi wàccu bi. waaw ah. nga xam ne léegi da nga faa wàcc musabbah ak musabbah bi. musabbah ak musabbah bi rek nga xam ne ñoom ñaar rek moo mm-hmm. ciy. des. Mm-hmm. su ko defee li nga xam ne moom la ñuy wax euh, raddul ajaz ala sudur nga xam ne booy xool. raddul ajaz ala sudur. loolu lañ tuddee tasdir tasdir. tasdir bari na ci xasida gi lool. loolu ñu ngi koy gisee ci bi muy waxee. ci lu mel ne boo xoolee. tàmbali maay lu mel ne masiir yi masiiru ne masiir yi la tàmbale waaye lan lay daa daanoo masiiru asiiru masiiru boo xoolaatee tamit lu mel ne yasiiru biya yasiiru yasiiru biya yasiiru ci njëlbeen am na sukuur mhm. yi sakuru sakuru <laughs> euh, kadalika mhm. ba tey it mhm. boo xoolee lu mel ne xusuur euh, yi xasiiru nusuur yi nasiru nusuuri nasiru nasiru mhm. sutuuri mhm. satuuru mhm. suhuuri sahiru loolu moom bëri na ci biir amiri yamiru moom kay dañu bari lool toujours baat bu njëkk bi ci xasi ci euh, bayit bi moom lay daanee laate wala lu ko niru waaw moom lay daanee wala lu ko tuuti la ñuy wuute xam ne léeg mën naa nekk ab ismu bee tamit mën naa ñëw léeg-léeg nekk ab ismu mhm. wala bee léeg-léeg mën naa ñëw nekk ismu bii ñëw nekk fi'l mhm. xam ne loolu tamit mhm. waxin la wu neex woo xamante nii sëriñ bi dana ko faral di euh, waaye tamit buñ xoolee euh, ci biir xasida gi euh, maneef na cee gis tamit li nga xam ne mooy li ñuy tuddee kinaaya xam nga fii mu wax ne wa min alqalbi min ridwanihi ma ukinnuhu daninan bihi anna sudura xubuuru mhm. foofu day mel ni kon am na lum mhm. bëgg a jublu junju foofu dëgg-dëgg mhm. ci diir wayin woowu kon daal xëy na euh, maneef na cee génne yu bëree bëri waaye yooyu euh, maneef na ko doyloo euh, ci yenn yi nga xam ne xëy na mën naa taaral xasida gi muy yi nga xam ne moo koy rafetal ndax ku ne xam ne ne way moom mhm. aw balaaxa bi dëgg-dëgg mhm. mën na caa bu dee jinaas bi moom da cee bëri lool moom jinaas moom da cee bëri lool moom waaw mhm. euh, kar yi mun mu kar yi mun ndax jinaas istiqaaq lay doon xam ne baat yi ñoo bokk fu ñuy fu ñuy xaroo waaw kon tamit bil xabli almatin matin foofu mën ngaa jàpp ne al istiaara moo fa am tamassaktu bil xablil matin matin yi mais mm-hmm, mm-hmm. alxuraan la ci jublo junj foofu moom la ci jubloo junj daal xëy na ma neef naa doyloo yooyu sëñ Bàcc aywa mm-hmm. jërëjëf sëñ Mbàkke tabarkàlla eh, xasida gi ni nga ko dirasa ak ni nga ko taxliile am na solo lool jàngat yu ama am solo ay sew-sew yu mawduwaat yu am solo génne na ko ci waaye eh, suwar balaaxe yi tamit ka ali ko génne na ci yu ama am solo E, mu mel ne loolu rek lañ ci doon séentu waaye gis nañ ci lu kawe suñu njort e, kon wax na e, tomb yi nga xam ne bu ñu ko tënkee nga xam ne ci la doon def waxtaan wi muy yoo xam ne yu leer a leer leer la damaa jàpp ne jéem cee jaaraat sax lëndëmal lay doon waaye leer na lool ba ci njëkk mooy leeral na nu unwaanul xasida xasida gi wax na nu xasida li ñu ko xamee woon day am adresse bu ñu ko xamee. leer ne euh, comme lu mel ne euh, xasida sindiidi nga xam ne sindiidi la ko tudde départ ba boo demee ci kii ba moom nga cee fekk adresse bi waaye yi ci des yëpp yu ci bare bari noonu la ko def waaye bii moom dafay mel ne dafay jékki-jékki rek bayit wu njëkk wi rek moom la ñuy tuddee xasida gi. asiru maal abraar day mel ne da ngay jékki-jékki rek jàng dem ñu ne loolu mooy turu xasida gi kon loolu leeral na ci lu solo taarix bet leeral nañu ko mooy. Euh, ban date la ko sëriñ bi radiallahu taala anhu bind muy li tambalé saint Saint-Louis fala ko tambalé ba ci bir bato bi kalika tarikh bi moy moy 1895 la bëgg wax mais place bërëb bim ko bindé moy Saint-Louis ba ci bir bato bi waye waznul qasida bi tamit wax nanu ko nee bahru tawil la ko sëriñ bi waye muy fuulun mafailun bo démé ci fukki bahru juróom benn fukki bahru juróom ya khalil kere beneen ba Axfash bu juróom-benneel ba dafay mel ne ca baxru bi mu taalife xasida gi ca baxru yooyee la bokk muy baxru tawil di baxru bi gën a siiw ci buxur yi comme ni ko maam Qaadi waxe kaalika mawduaatul xasida gi bi mu ci duggee indi na ci yu baree baree baree bari tabarkalla yoo xam ne mënee su ko takk ngir bari gum bari tudd na ci wane gum wane ne dafa dogu génn pour liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rappal ay këram eh, tàqalikoo ku njabootam ñu yóbbu ko fu sori foo xam ne bu ne dama ne du fa gis ko ne nga ne kenn déggu fa wolof kenn déggu fa li muy làkk mu sori lool eh, loola la ko waral du dara lu may tagg yonent bi képp a tax ñu def ko ñu ñu ñu ñu génnee ko noonu eh, bi mu dikkee tamit xam la ne le maanaam dafa li dafa dafa dafa xettali lislaam dafa xettali diine ji kilifa yi fi nekkoon yëpp kenn ku nekk way ko xasiida see seede ne moom kat moo xettali lislaam muy lu wér a wér buñ duggee ci bu àddul lugawi bi tamit kaalika ci xasiida gi eh, sëñ Mbàkke indi na ci eh, mboole lu bare bari lu aju ci eh, xeeti agaraat luga charia yi di ñu ko xamee ci diggante jinaasa xasiida gi fees dell ak i Euh, ki ki lu jëm ci wàllum jinaasa ci wàllum balaaxa euh, ak yu mel noonu euh, tabarkàlla ñun ñëpp ko déggandoo kon ñu ngi koy sant bu baax a baax ci woyof gi ak xam-xam bu set bi ak at yi li muy néew néew lii nag li muy junj mooy sëriñ bi dafa am ak bëggam rek ndax lii rek la bëggoon ci dëkk bi ndaw ñoo xam ne seen yitte yépp dañ koy jëmale ci xam-xam bu sel xam-xamu diine jàng xam-xam te yàlla tax ànd ak yéene ju sell ànd ak yéene tasaare e, mbindum sëriñ bi sëriñ Mbàkke nag bokk na ci ñi gën a ràññiku ci ndaw yi nga xam ne dañuy tasaare mbindum sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ndax boo yëree Facebook beeg foo dem rek fekk ko fa bis bu nekk rek mi ngi ci genn xasida di ko taxliil ak di bind di tabarkàlla loolu e, lu ama am solo la ñu ngi koy ñaanal sunu borom subhaanahu wa taala guddal aw fanam wéral ay cëram e, gën a yaatal am xelam gën koo sellal ba li mu bëgg ci liggéey lislaam ak yaatal mbindum sëriñ bi ak njàngalem sëriñ bi mu defee ko nu kawe njortam ñu ngi ci doon ànd ak eh, seen mbokkum taalibe ustaadu Massamba Syll doon ci dalal ustaad wala mudaris sëriñ Mbacke Diop Khudar ñu àndoon ceeg sunu cameraman sëñ Mbacke fii ci alxadimiya xanaatul xadimiya kon sëñ Mbacke sa kàddu mujj ñu tàggoog bokk yi. daa koy jërëjëf sëriñ Bàcc Massamba ñu ngi lay sant bu baax ci ni nga doon idaara jalsa bi. di sant tamit mbokk yi nga xam ne ñooy ànd ak ñoom jataay bii nii euh, di wax ne jataay yu mel ni moom jataay yu am solo la ndax euh, xasiday sëriñ bi léeg-léeg murid yu bëree bëri dañ koy jàng muy neex lool ba muy am ay jeexintal yu muy def ci ñoom te xëy na léeg-léeg sax duñu xam dëgg-dëgg mu làmboo ci ay maana kon di jël ay jataay yoo xam ne dañ koy jagleel xaside yi di ko jàngat di wane tamit aka leeral li nga xam ne moom la sëriñ bi jublu ci biir dana tax ñi koy jàng gën ko fonk dana tax tamit ñi koy jàng gën a xam laaju ci qasida gi ba mu mëna gëna am jeexintal bu mi def ci ñom ndax qasida la go xamanteni ni daw yaram la euh, bayit bobu rek muy xusuur khalat amna am na ci yenn gëssu kar xam am ni sax dañuy japp ne moy bayit bi gëna daw yaram ci bayit yi nga xamne ne sëriñ bi wax nako ngir ak ni ci ñeewantalee ak ni nga non la ci wané tumuranke gi mu tumuranke ak teqale giñ ko teqale ak njabootam gi mu gënoon a bëgg rawatina dëkkam bii nga xam ne moo di Touba muy dëkk bi mu gënoon a bëgg ñu génnee ko yóbbu ko ci réew yi sori yi lépp ngir sànki ko waaye suñ borom subhaanahu wa taala ku ko nekkal ku ne mu nekkal la man kaana lillaahi kaana allaahu jàlla lahu waaye màggal gi nga xam ne moom la ñuy màggalit fi ñu daaneele rek ci kàddu yu mujj ñu xam ne suñ tubaa coono yim daj da koo liggéey ba am ko mm-hmm. coono yim daj da koo liggéey ba am ko daa sonn dafa ñaq too xam ne man talabal londa saharal la yaali waaye nag digal gim ñu digal ñu def ko ak sant yàlla loolu am na yeneen bind yu ñu ci war a mën a jàngate ndax damay wax ne sëñ bi bu fekkoon ne digalutoon murid yi ñuy sant yàlla ci bis bii 18 safar kon xëy na mën nañ koy fàttaliku ñun waaye buñ koy fàttaliku ci anam bu métti lañ koy fàttalikoo aw naqar lay doon ndax bisu naqar la ci murid yi waaw gis nañ fi am réew moo xam ne am na période boo te ni su ñëwee am na lu ñuy fàttaliku lan la ñuy jël ay jaasi ak ay paaka di ko dóor seeni yaram ba muy naaj di wane na bis bi naqar la ci ñoom waaye lan moo ñu xeet li ci loolu mooy sëriñ bi daa ne suxiltu bi sukuuri anta sakkuri maa bay jara bayni bay na la askari yàlla borom subhaanahu wa taala damaa def ma doon ko am damay soxla woo di ko sant waleef di fàttaliku la doxoon sama diggante ak soldaar yi ma génnee woon daa tey jii moom dana ñaaw lool waaye nag daa mel ne daa jéggale daa baale kon nañ ko jàngee ci moom mm-hmm. afawtaanil aada i turran li wacci man nafaahum li gayri sarmadan lastu adfaaw mm-hmm. te yonti bi alayhi salaam la ci royee mm-hmm. keroog ba mu duggee màkka lan la wax ay mbokkam maa tadunnuuna anni faailun bikum lu ngeen jort ne moom laay def ci yéen ndax booba am doole seen kaw ah. ñu ne ko anta axun karimun wabnu axin karim yow de mbokk mu baax nga doomi mbokk mu baax izhabu fa antum mutlaqa dem leen boyal naa kon bind la yu ñu ci war a mën a jàngatee ñu ngi lay sant bu baax di sant Serigne Mbacke Mbegere mi nga xam ne moom lañ loon ci jataay bi mu ko doon jël mm-hmm. di sant tamit Serigne Mamour Touré ak mbooleem mbokk yi nga xam ne ñoo ànd ak ñun alxadim ya mm-hmm. di jégalu nag ci njuumte yépp lu ci dëng ci ñàkkamatu jaam bi la lu ci leer ci yàlla borom bi subhaanahu wa taala wa salaamu aleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ Mbàkke tabarakàllah wax ji am na solo lool wax dëgg yàlla jataay bi kawe na sunu njort lool lu ñu ci doon séentu rek gis nañ ci lu ko eh, kawe noo ngi koy sant bu baax a baax di ko ñaanal yàlla tijji am xelam eh, te dëppale ko tawféexam moom sunu borom te li muy def lépp ànd ak bëgguk sëriñ bi sëriñ bi mu ciy dàkk yàlla ci ànd ko te di ñaanal xewal yu bare bare bare top ci mm, tawarkal ba eh, lim bëgg lepp mu def ko dal di al khadimiya khanatul khadimiya bi nga xamne mom lañ ligi liggey bu am solo bu sel bi eh, seigne mamour Touré nek ci di sante seigne Mbàkke mi nga xamne moy sunu cameraman bi la ngeen ci doon and ak seen mbokum talibé eh, al oustad bacci Sill jërë ngeen jëf barakat Cheikhul Khadim ci sunu jataayu xasida yi bii nga xam ne moom la ñuy amal eh, waxtu wu nekk ak saa yu nekk eh, jóge ci eh, mbokk dalaat ci meneen mbokk waaye tamit kaalika mu defal na ko nu amee nu am solo lool moo xam ne séentuwuñ ko woon jàpp jàppuñu ne woon dana amee solo nii di wax ne li ci li ci jàkk lépp ñu ngi koy sant sunu borom xataa yarda waaye li ci dëng ak te yeguñu ko ñu jàppal ko yedda jërë ngeen jëf barakat Cheikhul Khadim